wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi wa sallim bala maa tàmbali damay sant sëriñ Sidi mi nga xam ni moo leen jox ndigal ngeen ñëw fii ci këram ngir ñu waxtaane ci suñu sëriñ di suñu baay di suñu turandoo mu Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu euh, man nag yàgguma ak suñu Ahad lool ndax damaa teel a génn euh, dem jàngi bi ma jeexale sama njàng lépp mi nga nekkoon ci ci ati tubaab 1979 daanaka at mu at genn wàll laa fi laa fi toog moom tool a génnaat dem di liggéey moo tax yàgguma moom waaye li nga xam ne moom la moom la ñëpp mën a seere Sëriñ Abdou Lahad bala maa wax man li ma xam ci moom mooy nit koo xam ne kii nitu dëgg la nit ku man nitam boo nekkee ci jub moom boo nekkee ci jub Sëriñ Abdou Lahad euh, sëg nit la euh, dëgg du ko seq kenn amu ci amu ci xarit amu ci ab taalibe boo ñëwee ci moom daal li nekk ci yow muy muy lu ci moom dana la taxaw ci côté ci euh, euh, côté yëpp li ñuy wax ci tubaab man nag euh, ñoo meloon ci moom mooy doomi sëñ fa la mu tudd ma ko sëñ Fallu joxoon ma ko bi may nekk ko ne lool lool waaye yàgguma fa ma daal dem jàngi alxuraan ginnaaw gi ma génn dem jàngi waaye li ma fi toog continué wu ko moom gis naa cofeel gu am ci seen Fallu am ko ci doomi sëñ Tuubaa yëpp itam am ko ci doomi sëñ Fallu yëpp itam ak doomi ñëpp ñi nga xam ne moom ñoom ñoo bokk Cheikhul Khadim euh, daana ma euh, digal ni ma fexeel ba bu la kenn yàpp ci say mbokk bu la kenn yàpp ci nga xam ne ñoom nga bokkal tariqa bi ak ñi nga bokkal diine ji kenn ku ne na ko jox gëddaam loolu daana ko wax nu ma ko fàtte mu ko ko daana am daana daana daana def mel ni day xaw a kafak man waaye man ñëwuma ko woon ndax xam naa ne xam naa li ñu jublu boobu mooy ma jéem koo ñemee waaye doomi sëñ Tuubaa kenn wutu ko wóor la may lépp nga jël lépp loolu ko def erreur la ndax euh, bu xasee ba nekk sëñ Tuubaa beneen nit lay nekk waaye li ma xam ci moom daal mooy dëggu gi ak bëgg mbokk gi ak taxaw euh, taalibe yëpp ndax bi mu nekkee xalifa fekk na Touba am yu fay tàmbalee xew yoo xam ni nekkul am fi euh, mu def ko ci xekk maam mooy waa Kër Sëñ Touba yi fi nekkoon ak moom mu bind kenn ku ne def sa tawqiya sa signature lii laa bëgg a def ci Touba xam nga loolu mooy wa amruhum shuuraa baynahum nekkutoon nekkutoon nit koo xam ne kii rek day jël xaraar wala décision def ko moom rek mais waaye dafa ko daf ko seq waa Kër Sëñ yëpp defaraat na Touba nag ci côté yu bari ci côté jikko ci côté comportement bi ñii ak ci côté dëkk bi ni mu ko ci ci euh, taxaw bi fekkoon mooy alignement bi yooyu defaraat na ko. digganteem ak gouvernement bi tam dëgg doxam digganteem ak gouvernement bi du na ko daan sakku sakku ci ñoom dara ñoom ñoo daan sakku ci moom buñ mësaa ñëw euh, luñ ko wax su fekkee ne lu yoon la fii dellu gannaaw euh, ñi mbokk na Sëñ Tuubaa ñëpp itam. gis ngeen màggal gu mel ni mu daan mel. Moussa ñëw mu xam Sëñ Tuubaa lool nag xam ko lool ndax boo gisee xam alxuraan aussi li gën a li bokk na ci li gën a jafe looy wax nga mën a def istishhad li tubaab arab yo istishhad mooy témoignage nga génne ci baatu ay alxuraan génne ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génne ci xasida Sëñ Tuubaa loolu daan na ko def di ko def da ngay boo gisee da ngay def da ngay defe ni lu muy naaf lu mu doon naafile la lu mu doon daan euh, euh, préparé la wala mu di ko nafar noonu bu ko xam nga loolu nag moom mayu yàlla la ñëpp ñoom ñëpp kenn ku ne am na la yàlla kale waaye li moom sëñ sëñ Abdoulaye amoon na ko euh, bu ma saa ñëw ci kër ñëpp ngay fekk taalibe yi ak ñi dut yi ñi nga xam ne àdduna leen fi andi ñi nga xam ne dañ fay ñëw ndax moom mooy sëñ Touba boo ñëwee ba la ma saa teral rek boo delloo euh, sa xol sedd ci côté yëpp am na ñoo ne ñaari yoon benn yoon lañ fi ñëw ànd ak seen i ma sa maanaam ànd seen seen soxna wala yu mel noonu waaye boo fa yeddoo bu ngoonee boo delloo sa kër yaag sa waa kër daanaka ci ngay ci ngay ta ngay tàmbalee waxtu woo diggante waxtu waxtu woo bëgg a ñëw da ngay seet sëñ Abdul Ahad mën laa jël dana ci diisoo ñi nga xam ni ñoo leen war a diisool muy waa kër muy ñi nga eh, xam ne eh, moom ñoo fi nekkoon di takkateer sëriñ Touba eh, bëgg fonk gum fonk diine ji aussi fonk ko yoon yi moo tax daanaka ñi fi nekkoon ji euh, turux borom turux suufi bi ñëpp ñëw nañ seet seet sëriñ Tuuba sëriñ Abdoul Aziz euh, commencé ko Cheikh sëriñ Abdoul Ahmad Tidiane Al Maktoum ba Cheikh Touré ñëw na fi Cheikh Touré jógee Guinée ñëw na fii te loolu c'est c'est la première fois je crois que mooy mooy dernière fois tam président Guinée ñëw fii fi àjjuma euh, loolu lépp day day day day day tegtale fi mu tegoon bennoo ndax xam na ne bennoo ci la doole nekk surtout benn jullit yi ndax boo xool fekkee fekkee ne seet nga jamono ju ñu nekk li xew ci euh, réew jullit yi mooy ñàkk nekk benn kenn ku ne di xëcc jëmale sa jëmale sa boor pour man doo dara te loolu loolu mooy ñoom nga xam ne ñu ngi ci ndax musulman yëpp benn lañ noonu ci yoon maanaam bu ñu ku ci xam diine la xam ni euh, amuñ xajale ko ay xiseen moo tax suñu Abdoulaye loolu la defoon yàlla dimbali ko bu baax boo gisee ki fi nekk léegi di xalif général Laayeen yi numéro la suñu Abdoulaye waaw bu ma bu ma sañu màggal gune moo daan ñëw fii nekk si Abdoulaye di wax di wax wax ju am solo ñeneen ak ñeneen ñu ñëpp waa kër yëpp ci lañ tàmbalee daanaka ni ginnaaw bu suñu fàllu boo gisee ñoom ñëpp dañ daan màggal si yim fi def na dañ fi loo xam ne tam yaakaar naa ni bokk na ci li gën a rëy ci mbiram muy mbindum Sëñ Tuubaa bi mu dajale waaw te loolu ñëpp soxla ko ndax am na fi ñoo xam ne xamoon nañ ci dara waaye ni ko dajalee def ko ci benn benn benn makkaan yaakaar naa mi ngi mi ngi door am baytu dayaafa bi fi def tam bu yuutu dayaafa yi fi def nga xam ne ñu fi njëkk ñëw gi daam dañ ko yokk yooyu itam xam nga dina am solo la ndax bu fekkee ne màggal gi buñ seetee gan ñi fi ñëw dugg ci yenn turux yi ak même ñu dul julli sax ak ay alaaf lañ doon yoo xam ne ñu ñëw te bu ñëwee lépp lépp li war ci ñoom moo koy def waxuma loolu la waaye ñu ci bari am na ñoo xam ne bu ñu mësaa ñëw sax sant yenn ñu sant ndaw buñ màggalee ba dafa dañuy xaar ba xam dañ gis Sëñ door a dem ñu sant na walaa wax na xuma <laughs> xam nga yoon yi euh, euh, xam-xam la ak liggéey bu ñu wax jaamu yàlla xam-xam mooy tax nga yàlla parce que boo xam-xam yàlla mën na koo jaamu ah donc loolu mooy bokk na bokk na ci yoon yoon tariqa bi mooy liggéey jaamu yàlla sopp bëgga bëgganteeg ñëpp kenn ku ne nga teg ko place moo tax sëñ Abdoulaye comme ni nga ko waxee mooy euh, loolu moom euh, projet boobu mu commencé woon affaire yi daara ji euh, def na eggul ci loxoom waaye sëñ sëñ Mountakha Mbacké bi nga xam ne mooy fii Serigne Touba tey ñaan yàlla yàggal ko fi lool ba mébét bi moom mi nga xam ni ñu ngi ko fi jiitu sax tàmbali woon nañ ko yàlla yeggale ko ci loxoom ba yeneen mi mébét ñëw yeneen yeneen projet ñëw ay machaari yoo xam ni taalim ndax ndax jàng mooy lépp ndax sëñ Touba loolu rek moo bëgg-bëggam la doon ko bëgg ko doon si wut xaalis ya jàng la bëggoon ak xam-xam surtout lu jam ci xam-xamu diine xam-xamu adduna tamit foo ñu boole ko ci ñun ndax jamono dafa soppiku moo tax euh, euh, li nga xam ne moom la xam naa ni xam-xamu diine ci waaye itam xam-xamu adduna tam ci la bokk ndax bu ngeen bëggee ëllëg ñu jox gone réew mi xam loolu il faut ñu jàng moo moo tax lu am solo la Euh, moom moo laa wax ci affaire bibliothèque bi nga xam ne sëñ sëñ Abdoulaye euh, am na ñoo xam ne da leen daa wa dégg na buñ buñ déggee buñ déggee ne diw yor na bindum sëñ Touba jël na ko sax moom mu jël sa moom mu sol talam dem ba ca kooka ak lu mu sori waxtaan ak moom ma fexe ba kooka jox ko lam yor sëñ Touba wala mu bu ko tam mu jël ko yu photocopie ko mu mu delloo ko moo dima mu ñang mii nga xam ne mooy suñu lépp itam yal na ko yàlla bàyyi ko ci kanam xam nga tam daana ci dox tànk yu rey dëkk yu bëri daana fa dem sëñ sëñ bee ko daan yebal muy dem di wuti ay téere yoo xam ni dañ koy def ci bi jàngal ak ñi fi nekk ñëpp itam yooyu yëpp itam eh, loo mbir la yoo xam ni daa bokk ci eh, yoon bi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa tracé woon muy xam-xam te moom la ñuy digal ñëpp itam ndax nit bu nekk nit bu jàngul dara rek daanaka moom moo ko eh, ngeen baal ma li ma ko waxee ci parce que l'expression mooy mooy daanaka moo moo bàyyi ma ñooyam donc nag il faut ñu jàng il faut ñu jàngal ko ne yar leen waaw ndax yar bi seet nañ ne manqué mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ñëw ci laaj waaw ndax bu njëkk murid li ñu xamoon mooy ku la féete mag nga jox ko cëram waaye léegi yooyu daanaka wàññi ko no baax dañ koy wax ndax nit de boo dëgg xamee dañ koy wax loolu mooy sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye moo demal gis nañu tarbi bi wàññi ko na li ko wàññi mooy ñàkk jàng gi ndax gone bu fekkee dafa judd musta jaar ci daara musta tumuranke am fukki at ak ñett wala fukki at ak juróom benn am ku topp ci ginnaawam bu ñëwee bu la fekkee boo dee bàyyam wala boo dee bagam du la jox cër bu mag du la jox loolu du ci mouridisme mouridisme segam doomi Sëñ Tuubaa ñu daan ñu daan wegante ah seen diggante surtout ñun ñi nga xam ne duñ doomi Sëñ Tuubaa ay ay sëddam lañ wala ay taalibe lañ donc jàng mi moom lañu war a gën a euh, euh, favoriser ci nit ñi xam bëgguma waxtaan ndax ndax moom lañu war a gën a euh, jañax nit ñi pour ñu dem ci dañ gën a jàng waaw bu jàng bu jàngee rek lu ci bari incha allah dana gën a baax ndax yoon moom kenn mënu ko yàq yàlla mi koy jox Sëriñ Tuubaa defal na ko ba noppi dañu mën nag mooy dañ ci ñu jariñu ci dañ ci jariñoo nag moo ñu jàng jàngali sëñ Abdu liiri Sëriñ Tuubaa li mu bind ñu jàng ko xam ko buñ ko defee rek yu bari mën mën mën nañ cee bañ a egg ci ay ñaawteef kon nag sëriñ bi moom euh, mënuñ ko fay waaye yàlla na ko yàlla fay ak xaadimu rasul mi nga xam ni moo doon euh, meññam talam ak mboolem waa kër ga ak mboolem jullit yeeg taalibe yi waaye lii ngeen def ne mooy mooy mooy sëñ Sidi Mbacke yal na ko fi yàlla yàggal lool ak mboolem waa kër sëñ Touba yeeg taalibe yi lii mu def lu baax la ndax ñëpp ñun ñëpp war nañoo xam war nañoo duñu xam sëñ Touba Abdoulaye lépp sax ndax sëñ Touba la sëñ Touba ñëpp xamuñ ko waaye da ndax ñu gën a xam ci dara xam ñu gën a xam ci sëñ Touba sëñ Abdoulaye yoo xam ne dañ cee ñu ci zahir ak ci baatin kon nag euh, ñu ngi ñaan euh, yàlla sëñ Sidi di ko ñaanal